confiance su doomu jàmbur yi. dama Bakary temps yi gis naa ne da ngaa pause mais c'est exclusif bi ñaan naa la ko bu ko defee ñu def ko ci làmb ji ma ne ko Fadam dafa am lu jiitu loolu si ma ko waxee Fadam dana ma non non Bakary jaru ko. moo tax ma ne leen tey su ma su ma gisee nit di attaqué Fadam lan moo tax man may mer parce que xam naa ni am naa fi vidéo yu fees dellu yu ma fi yor. mu duñ la woo wax ndax tey vidéo bii ñii di xëccu ci làmb ji bëgg nañ lii bëgg nañ lii ah nañ dem hôpital diagnostiqué wu ba pare. ndax nag gis xale yi naan gulli gulli xale yi tooy seen seen i légumes xale yi saf-sàpp ngeen jàpp ci xale yi di kat fekk na xale bi kattante naa keneen ak keneen ak keneen ak keneen maladie am fa ngeen kat ñëw seen kër kat seen jabar malaadi bi day gën a law loolu gouvernement bi da cee war a jug gouvernement bi da cee war a jug gouvernement bi da cee war a jug te wax naa leen ko nee naa leen respecté leen ci seen biir respecté leen seen bopp d'abord bu la leeree ne yow da ngay katti feneen waxal sa jabar yaa ngi katti feneen bu ko defee ñu jaaxaan fa yéen ngeen dooni kilifa du sol nday ay koppati du toog ci tele bi ñuy yor ay micro moo xool bu góor beeg bu jigéen bi barke Serigne Touba bu góor beeg bu jigéen bi yori micro ñu am ay vidéo lu motif yoo xam ne nii dafa ñaaw ci koo xam ne nii day feeñ tale dañu waxante dëgg xam nga bu dee Bakary moo am vidéo lu motif il s'en bat les couilles Bakary monde Amérique lay dund man dund ma monde Sénégal bi man bu ñu ko doon samay taat sax j'en ai rien à foutre j'en ai rien ndax bàyyi du ma wax nday du ma wax lu tax parce que ñoom seen jën jëm bopp xam nañ Bakary ni mu

di xëccoo ay palaas ci biir Sénégal doon kilifa doon promoteur doon kilifa yor micro fu ne nga toog dëkk sa micro léegi nag bu guddi gi jotee nga jug na da lox mbuut jàpp xale yi di kat di kat. guddi gi jotee nga jug na da lox mbuut jàpp xale di kat di waa ji de bi mu tëddee man ba tey déggaatuma ko daw na ma. waye man barki demb la jóge ci médecin médecin mi ne ma damaa amee sida kenn ki kenn ki am lu ñuy wax euh niñ ko waxatee sax euh, waye chlamydia chlamydia kenen ki problème hépatite la am hépatite damay wax mu lèr hépatite chlamydia ak sida ay kilifa ñoy dem teud ak ñom ba paré bu ñëwé ci signal leen décharge dégager sen responsabilité ba paré ne leen fu ngeen ma yuxo ma yóbbu leen cybercriminalité cybercriminalité nag yéen war ngeen a bu leen xool ki kii kilifa la kilifa yi ñoom ñoo fi ne di noot booy yi waaw fu ne ñu tëral leen fa hôtel bu ne ñu dugal leen fa. dañ ko wax de léegi nag leen seen ndey ginnaaw da ngeen di ñàpp ndeyam di ma ay taabak ah di ma yónnee ay taabak ay affaire léegi vidéo yi barki Serigne Touba Mbacke bu taa bi continué te barki laa leen wax bay boo ngeen def bay boo ngeen def ma néew waaye dama naa leen ko wax de bu taa bi barki salaatul ala nabi deme bu ma xëyaatee gis benn tab bu ndaw ma katt nday vidéo yëpp ci ligne bi bu boobaa da tal yeneen bu ndaw ma katt nday vidéo yëpp ci boobaa da ngeen tal yeneen ba fàttamaa joxi taab abi yow mi may yónnee taab bi da amul job xanaa boo ma taabee nga xëy ñu tàggale sa nday nga ba jour bi ma taab ci àllarba bi ci la sa yaay xëy gaañu ba ma dama la koy waxaat léegi nee naa la mën ngeen a def lu leen neex waaye xam leen ne saako mandig móori bi la ndax da leer ni kii jóg di ma yónnee taab dee la bëggoon ci man mais mënoo leen ko maa ngi fonctionné samay vidéo mi ngi daw maa ngi xëy di liggéey tëdduma maa ngi liggéey suba ak ngoon sama comme <laughs> ndox mi daal danaa daal danaa après lan saf lan saf lan la saf <laughs> journaliste bu jigéen bi moom jigéen da ngay joge jigéen da ngay joge journaliste bu jigéen bi jigéen da ngay joge waaye tëdd rek mel xar bu dee naa mm, mm, mm, ah ñu lay fóon à la place nga def nga nga ngaraan nii jigéen da ngay joge néeg bi waaye aayoo leen tëdd rek jaaxaan naan ni <laughs> ñu lay fóon sa xanaa nga jël làmmiñ bi yëngal làmmiñ ci kaw yi nga làmbee ci suuf waaye nii rek ah nga gis nag journaliste bu góor bi naan ko ah danaa daan danaa daan danaa daan naan ñi danaa daan danaa daan ak ah, koy bu bi koy bu ndaw bi danaa daan danaa daan way daan danaa daan saf lan saf lan la saf yow gii dugul ci gémmiñ lu saf bàyyi naa la saf waay <laughs> waay waay waay anuma Paul <laughs> ah yéen ñi ngi yor licence yi nag yéen bëri yéen laay wax yéen bëri ndaw yi dama leen a yërëm yërëm naa leen yéen seen ko de ko ay chroniqueur làmb lañ ñi naan ay lii lañ fadam ak boucher woo nañ ma daan boo daanul ma tegal sa ndey ba nga tëdd boo daanul moo tàkkusaan bi ngay daanul ay kat ndey sa vidéo wax la ne la yow nañ nañ nañ déchiré ndey sa licence déchiré carrément nañ ci sey nday sa licence moment bi ngay daanu sa takusan bi ngay daanu lay kat nday sa vidéo insérer ko wala na leen waji jëru sax fay 1 dollar barki dem ma leen fi doon xéxal ma leen fi doon xéxal barki dem na leen plus 2 millions ñu jëge fa gisé ni vidéo lu mu def ngeen katé xana sax bu ngeen katé ngeen ci luissé waye tak di katé jël nday ndomba tak nday ndomba ba fi <laughs> tak ndomba ba fi la li <laughs> yewu nit la li lay wax yeke ni mo mo len galaj dinaa dee bu ko seetaanee boo xam ne romantique. dara takk takk ay ndomba yoo xam ne kenn xamut ay ndomba lan la ah ak waa takk fas bu xonq fas bu xonq wi weer benn béjjën benn béjjën xanaa ko ne béjjën bi sax mooy kooy bi <laughs> ay yàlla ay yàlla maanaam jooy maa ngi réeway jooy lii kenn xamu ko <laughs> dinaa yut <laughs> non gars yi barki Serigne Touba Mbacke vidéo yi dama ko dafay réew a tëdd ci suuf journaliste bu jigéen bi nag moom man moomu gën a bett journaliste bu jigéen bu génnee télé fii génn télé lay def waaw ñi hmm. ñi ngi hmm, biñ mané ah xalé bi neex la dé way nañ xalé bi da bi ñu écarté tànke mu nan ki trompé na la moo bu leen jabar à distance bu leen jabar à travers de vidéo ndax la ci kawal laal ba ak la ci bitu du bien ma ah, reere kilifa yi nag. dee ñoom kilifa ñoom seen mul seen lomotif dara dàqu ba nga gis kilifa goo xam ne nii xam nga caaye amul fermeture dafa am benn genre espace noo kilifa gi nag naanaan la ñett Abdou la sol ñett dindi benn bi sànni dindi benn bi dese ko su vêtement mu génn jon bi jon bi na génnee ci bën bënu caay ji <laughs> jàpp xale bi sës ko naan ko ah, mi ngi baax mi ngi baax waxna la gane la man duma <laughs> mag de xol la dama am doole <laughs> ah mi ngi bax mi ngi bax <laughs> mi ngi baax yow ya, doo kattan ndeyam noppi kattan ndeyam noppi kattan booy bi kattan bi tam su kattan boy, bi noppi sax mo dak mais kato boy bi nopi wo oh. nee mi mi ngi bax xale bu jigéen bi nag ne fofu naan nii xale bu jigéen bi waxut de waajaa ngi gi nan ko mi ngi bax mu nan xale bu jigéen bi ñëw la ne <laughs> c'est du n'importe quoi Dame Mbeek barke Sëriñ Tuubaa kilifa moo tax ku ci dégg muy ñàpp ndayam télévision télévision yi naan da ngay yedd nday gone yi bu ma kattee sa nday su ma dëggee sa nday dootoo ko defee vidéo bi dafa jar may saaga de parce que ñun bàyyiwuñ ci xel ci benn affaire dafa am benn affaire boo xam ne nii bàyyiwuñ ci xel ñi ngi yàq suñ booy yi booy 18 ans yi ay avenir lañ nga baleen ca kër ga ne da ngay dem jëli ci booy 18 ans yi di katt booy te doon di leen promettre ay 10 000 francs ki 15 000 francs loolu du yàqu doomi jàmbur yàqu doomi jàmbur jëf jooju du du bon la djuf ju bono bon la ba pare ngay laal yow solo kàppur doon kilifa c'est les vidéos le motif là que les les les les les gens de Sénégal qu'ils ont fait là dans mon téléphone je l'ai vu tout tout tout dessus. ils l'ont fait des bro des pères de famille prend des filles de 18 ans c'est n'importe quoi n'importe quoi. Après, ils sortent à la télévision, ils disent, ouais, euh, le bon Dieu dit ça, ça, ça, ça, ça. Hein yéen yaakaar ne yéen yéen loolu yoon la yam nañ ci seen i jabar xool sama jongoma bi ah, waaw waaw kii mooy Chéri Bakary cium waaw Chéri Bakary voilà ñu da ngay am fulla am fayda ana sama doom nana eh nana nana concentre. nana toi t'as un problème <laughs> منع دغي دغي دغي دغي ام دي nit ki da ngay am ndeyu fulla am jabar am doom nekk ci sa jabar ak sa doom tranquille waaye japp ci boy doomi jàmbur yi xale yu fett yi gulli gulli nga japp ci boy di kat di kat di kat ba pay sey vidéo am lomotif ngeen ñew ah di di di di créer ay problème di tek fi di wane ay yalla ak yenen te te gëmo leen sax lii bu ma ko rek yàgg na boo wéree waaye yor ndey jabar rus koo wane ah rus ndayoo wane seen jabar yi ndax lan nga leen di di leen maltraiter ci kër yi bu ngeen génnee seen seen seen mbokk yi seen xarit yi seen i doom yu am 17 ans 18 di jàpp di leen yóbbu ay hôtel ah di leen kat di leen ëmbal di def ay décharge lu ne ngeen def ko di leen yóbbu hôpital di leen yàqaloo seen i biir am kilifa ah mu la kilifa amoo leen ndeyi kilifa waaw nii la jabar day branché

waaye yéen ñi nga xam ne ay kilifa ngeen nekk fi yor nday yor nday micro bu ngeen toogoo ci télé bi di jéem a wan nday nit ñi nangam ne seen jabar yore seen daay bu ngeen génnee jàpp ci xale yi digital yi kat ak bañ furi moo taxit booy maladie bu ne jox na leen ko ngeen wàllu ko seen jabar yi kéem ñàkk ngeen